al ibaadatu wal xidma di yàlla ak liggéeyal lislaam bu tedd bi subhaanahu wa taala moom mi moom lépp ñépp wax ci xadiisu qudsi ne araamal na ci boppam tooñ waaye araamal na ko it jaam ñi di ñaan xewal ak mucc yàlla na ko yàlla wàcce ci yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam mi doon wax ne bàyyi leen xel yàlla te moytu tooñ ndax tooñ lëndëm lay jural jàmb yowmal xiyaam mbokk yi maa ngi fàttali sama bopp di fàttali leen tooñ amul solo ab jullit day moytu tooñ ndax mbir la moo xam ne léppam lor la day merloo yàlla te merum yàlla xajul ci mbindéef te jaam nag dana tooñ ba tax yàlla mere ko dana waralit mbugal mu metti fii ci àdduna ak ba àllaaxira dana jur toroxtaange ak gàcce yowmal xiyaam dana tasi kër di tasi réew dana tax bu yomal xiyaamee ram moom yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ñu xañ ko nit ki ndax mën a tooñam tooñ màndarga la ci xol bu lëndëm ak xol bu wow ku xolam leer ku xolam nooy du nekk ab tooñkat yonent bi aleyhi salaam wax na ci xadis ne yàlla day nit danay tooñ mu mel ne yàlla da ko bàyyi rek di ko seetaan waaye gis la koy nege gis bu ko jàppee dana xam ne yàlla yàlla ko jàpp jàngali sunu borom wax ne jàpp ko sunu boroom jàpp gu métte métti la te tooñkat yi barab bépp boo xam ne ay tooñkat dafa nekk nañu xa nañu nég loolu ñu bàyyi xel mbokk yi ne yërmaande yàlla yaatu na àgg na fépp waaye nag tooñ yi dox diggante jaam ñi seen biir yàlla day seetaan ba ñu fayante ko moo tax tooñ yépp mat a tooñ yàlla tooñ sa bopp tooñ sa moroom waaye tooñ sa moroom moo ci raw yonent bi salaam nee na képp ku ci tooñ moromam moo xam da koo tooñ ci ab deram wala da koo tooñ ci leneen alalam wala leneenam fexeel ba lijjanti ko fii ci àdduna bala nga faatu yowmal xiyaam xaalis bu ñuy fayee alal di ñuy fayee amu fa ay jëf yu baax ak yu bon ñoo fa nekk soo amee jëf yu baax danañ ko jël fay ka nga soo ko amul danañ jël jëfam yi ba nu sotti la yow waaye yowmal xiyaam kenn du yóbbu kenn ak baale it amu fa kon moytu tooñ war nañu ñun ñëpp ndax ku dugg bàmmeel te tooñ sa moroom jàmm te baalu woo ko ba mu la fii ci àdduna delloo woo ko àqam ba mu mat yowmal xiyaam doo mucc mukk te lijjanti wuñ loolu loolu mbokk yi jullit bu ne war na koy toj ci kanamam yonent bi ay salaam waxit ne waat naa ci yàlla ne da ngeen jox nit ñi seeni àq ñépp la ñuy delloo seeni àq ba ci xar yi mala yi yi mbëkkante ñi ami béjjën di mbëkk yi amuti béjjën yomal xiyaam su borom bi dana leen taaj ñu fay moom lañu dégg sëriñ bi di ko wax ci téereem wax ne bis penc fayoon dana xew diggante mala yi am béjjën ak yamutooni béjjën xar mu amoon i béjjën di mbëkk moroom yomal am danañ saxal moroom yi ay béjjën mu fayu su borom mooy maandu kon du bàyyi kenn du yóbbu àqi kenn loolu nag jullit bu ko xamee di dund ci àdduna ko war naa góorgóorlu ñu bàyyi xele ni nit soo ko tooñee ak nu mu a mel lu mu ñàkk ñàkk solo boo ko tooñee bu tàllalee loxoom ne yaa bi yàlla du ko tànqamlu yàlla du delloo ñaanu ku ñu tooñ moo tax xakim boo xoo ne moytul ku ñu tooñ yor na fett goo xam ne kum ko sànni jam la bis boo ko tooñee bu la ñaanee yàlla yàlla ñaan ñaan ñaan nga dal kon mat naa moytu mbokk yi tooñ yépp yépp bon nag mbokk yi waaye bokk na ci yi ci yées nag tooñ nit ci bàkkan faat bakkanu nit ci lu dul dëgg ci bàkkaar yu mag yi nga xam ne day alake di yóbbu nit sawara ci la bokk sunu borom wax na ci alxuraan ne képp ku rey bakkan bu dib jullit te tay ko ak payam mooy sawara du ci yem dafay sax da koy booleeg yàlla mere ko di ko rëbb saa su ne waaye dencal ko mbugal mu tar waxtu wu ne loolu ci faat bakkan bakkanub jullit te tay ko rek la ko yàlla wax kon lu rëy rëy fa suñu borom mu waxaat feneen moom yonent islam ne waa suuf ak waa asamaan buñ dajale kompale woon song kenn benn jullit rey ko benn jullit ñu rey ko yàlla yàlla leen ñëpp tabal leen sawar ñëpp ñëpp buñ maase woon song kenn rey ko luñ bari bari yàlla dana leen mbugale yóbbali sawar ñoo ñëpp foofu la bakkan tollu mbokk yi yéemu ci jullit waaye nit rek yonent islam it wax na ne ku rey koo xam ne muahad la du jullit waaye dafa nekk ci biir jullit ñi jubóog ñoom di dund ci jàmm ku ko rey xetuk aljanna du la xeeñ te nee na xetuk aljana nit dana nekk fu sori lool mu di ko xeeñ loo xam ne doxum ñeent fukki at ngay dox dor ca àgg nit dana fa toll àjjana di ko xeeñ waaye ku rey nit donte du jullit waaye tooñ ko moo tax nga rey ko xetuk aljanna du la xeeñ loolu nag mbokk yi mën naa moytu mën naa muslu wax na feneen moom it ay salaam ne bépp bàkkaar yàlla mën na ko baale ba mu des bokkaale ku faatu fekk muy bokkaale yàlla yàlla du ko jéggal ak ku rey ab jullit te tay ku yàlla du ko jéggal loolu mbokk yi bu ñu ko xamee jamono jii ñuy gis yu bari di xew ci lu kenn xamut lu mu doon ñuy jël alali nit ñi di leen tooñ guddeeg bëccëg di leen rey di dagg seeni cër ak yu kenn xamul loolu ñaawteef la woo xam ne tukkatal àdduna saxañ nañ ndax yàlla day bañ ku tooñ te tooñ gu tar dana waral yàlla wàcc mbugalam mbugal moo xam ne bu agsee ñëpp ñëpp la leen dal ndax am na yoo xam ne fitna la boo xasee wàcc du yem ci ña ko def kon ñëpp war a dox dox jëm ci lu koy fanq la koy fanq nag mbokk yi lu ci gën a am njariñ gën a jaadu tënku ci ndigal yàlla yi amul ñii def ñaawteef yooyu lan rek ko mën a saafara jëfandikoo lu yàlla santaane ci ñoom mbokk yi jullit ñi amuñ yoon wu gën a jub wu gën a baax wu ëpp njariñ tënku ci sharia saa bu buñ jëfandikoo woon sharia ne ku rey nit nañ ko rey ku dagg cërëm nañ dagg cërëm léegi tey nit ñi doon ci jàmm ndax wax yàlla wala kum fil qisaasi xayaata waxam du tuxu waaye nag buñ jàppee ne ñu ëpp yàlla yërmande ba tax ñuy bàyyi yu mel noonu moo taxit waxtu wu ne musiba dal ci suñu bopp yàlla ëpp ñëpp yërmande moo leen gën a baax kum ne nañ ko rey rey rek war war ci yow te am na ñoo xam ne yàlla leen rey lu ku rey bakkante rey ko yàlla santaar ñu rey ko mbokk yi bépp jëflante buy jëflante moom bu dul rey ko ak ton la ndax du jariñ loolu nañ ko xam te jéem a dox jëm ci bi ci desit nag jéem a góorgóorlu ci yar njaboot gi ci daf ci ñoom bëgg di dund diine am na yëg-yëg boo xam ne ku mu newul ci yow man nga def lu ne yëg-yëgu diine mooy ar nit ba bu bare woon it alal jàmbur nekk nii mu mën koo jël kenn du ko gis mu xam ne yàlla nga ko gis bàyyi ko waaye dafa mel ne nag bari na ci ndaw ñoo xam ne yëg-yëgu diine ba mu ci ñoom dañuy dund nii rek seen bëgg-bëgg daal moo leen di womal suñ xiifee ñoo mala yi ñoo yam suñ bëggee dara amuñ ko noppi nañ ngir def lépp ngir jot ci loolu nag du nitee loolu ak mala ak xayawaan yi la gën a jege waaye doomu aadama mooy koo xam ne bu xiifee bu sonnee bu amee soxla day xam ne nit la am na fu ko yàlla tënk mu jëfoo tënk boppam loolu nag jàngal nit te yar ko yar ruuxam moo ci mën nit kon nañu delloo góorgóorlu ci yar njaboot gi warteef la de boo xam ne kenn ku yàlla dénk njaboot ku ne na nga xam ne masuuliya bu nekk ci saw loos la bu ëllëg yàlla dan la ko laaj waaye jamono yàqu na kenn mënalutul kenn dara loolu kenn du ko lay suñu borom mbokk yi boolekee nañu dollee góorgóorlu ci njaboot yi lii di xew bu ñu sàgganee fu ne li dugg dëkk bu tedd bii kenn xamu ko fi te ñu ngi ko fiy dégg si te it nag ni muy dawee mën naa àgg fu ne nag loolu laaj na kenn ku ne góor góorgóorlu daf ci mënam kon rawante bi mi ngi ci fexe ba tënku ci sariya ku def lu sariya ne nañ ko def nangam nañ ko def waaye nag nañ yar njaboot gi yee leen suuxat ci ñoom di bëgg diine. ba diine di leen wommat lu mu bëgg ñu bëgg lu mu bañ bañ yàlla na yàlla boole dimbali.